ñàkkum ndox mi ci dëkk bi metti na loolu ci mboolem nit ñi ñuy ñaan ci ñi jiite dëkk bi ñu dimbali waa Touba si ñàkkum ndox mi ndaw yi sonn nañ mag ñi jaaxle nañ root mi metti na ngir bëgg rek lu nu naan gox yu bari ci Touba yéemu nañ ci coono yi ñu dëkkee ngir amuk ndox lii yàgg na lool te metti na ñuy ñaan sunu yaakaar ji Sëriñ Muntaxa mu dimbaleeti dëkk bii di Touba ci wàllum ndox mi Mbàkke yow rekk ci mën dara